waaw joxe suñu asalaamaaleykum ma ngi nuyu sa auditeurs yi ñu lay sétal ñëpp. li ñu ci jublu rek mooy dimbali population yi. Mhm. parce que nag jamono ji naqari na. naqari na fépp mais nag am na foo xam ne bu fa jamono tolloo. Mhm. képp kuy doomu Tiwaawoon wala képp kuy doomu gox ba nga jógee. war nga mhm. faa mën a bu la yàlla dimbalee war nga fa mën a dellu. loo am nga bokk ak ñoom moo tax lii suñu contribution la ñun waa mouvement Andu Nawlé. seen contribution bu modeste nag mais suñu contribution la pour dimbali population yi. ci koor gi d' abord ak mu fekk euh, feebar bi am ci sa ci ci réew mi. Mhm. mais nan ngeen ciblé ñi ngeen koy jox ñi ngeen koy jox par exemple yan façon nit ngeen koy jox et puis ñan ngeen ciblé pour jox leen li nga xamante moy mooy ndimbal gi. voilà merci El en fait euh, ren li ñu li ñu li ñu def. Mhm. ciblage bi mooy euh, vraiment esprit bi mooy fexe ba identité ñi nga xam ne ñoo ko gën a soxla. Mhm. am na sama benn xarit bu ne ma fi mu toll nii ñëpp a ko soxla ma ne ko waa mais am na ñu gën a soxla ñeneen ñi. donc loolu la ñu essayé def. Euh, identifier nañ koñ bu nekk. dinañu fexe ba en tout cas li ñu am ci ay loo je pense que lu ma téeméeri kër bu ci nekk dinañ fa dugal euh, saaku ceeb ak euh, ak suukar. Mm-hmm. ren aussi ni ñu ko defee dañu doon parce que dafa am loo xam ne aussi dañ ko seetlu. Mm-hmm. ci Sénégal mooy nit ñi bu ñuy dimbali nit ñi. dañuy woote woo nit ñi te ndimbali teg caméra yi mm-hmm. te man jàpp nañu ñun de en jàpp nañu ne loolu rafetul nit mën nga ko dimbali bàyyi ko dignité moo tax ren ñu defar carton yi mhm. nga xam ne dañ ci bind àndu nawle def ko bon boo xam ne saaku ceeb lañ ci def mhm. ak euh, suukar boo xëyee bu ñu dinañu dem kër gu nekk ñi ñu identifié jox leen ko mhm. bu ñu la ko joxee boo xëyee suba boo ñëwee fii ci marché Tivaouane bu di ko ala boo ko joxee bon bi dina la jox sa ceeb dina la jox sa suukar nga yóbbu ce que je ko mmh. donc cette année nous mmh. changé format mmh. euh, wàcc awan wah wax dina xam ni hmm. suñu doole bariwul hmm. waaye li nga xam ne mën nañu ko atte nañu ko hmm. suñu doole li mu atte ñun waa mbuma àndu naw leen moom la ñu dajale indi ko nii mooy contribution nii dinañ ko joxe nak, mais dinañ ko joxe dans la plus grande discrétion. mais dama gis peñe yi ngeen daan joxe daaw ngeen garoon bagi ren dama ko discrètement loolu lan ma Wow, waral. isak, pañe yi sax xam nga xam nga daaw bi daf ko joxoon ay membres. ren jii dañu waxtaan suñu biir ñu ne comme daaw membre mouvement bi dañ ko joxoon ñu ne legi, dañu fexe ba la ñu joxe woon ñu bàyyi xañ ñun ñi nga xam ne ñoo bokk mouvement àndu nawle mhm. euh, delloo ko population bi moo tax li ñu joxe ci ay pañ pañe ndogu moom la ñu bàyyi dajale suñu doole ñu ñëpp mhm. jënd ko ceeb jënd ko suukar jox ko population yi parce que jàpp nañu population yi aussi ñoo ñu ko gën a yelloo fu mu li ñu laaj mooy est-ce que nit ñi mën nañoo ñëw fii ci ala indi est-ce que du am ay ay ay ay ay njuuj njaaj ci seen carte yi wan wan ma carte bi ma xool manam carte bi naka ngeen ko est ce que nit mënul ñëw jël carte bi defar carte bu mel ni ñëw ci alamu jox ko benen nak ngeen fexé ba euh, sécuriser ko ba je pense que sécuriser lañ ko suffisamment amna mi ni euh mu andu nawle lañ ci bind euh bi hmm. et liste bi nga xamni mom lañ ko jox aussi mom lañ bénéficiaire aussi dinañ ko jox

parce que nattu la nag. Mhm. nañu protéger wu nañu fexe ba takk masque yi def mhm. mesure barrière yi. Mhm. mais itam nañ ci boole ñaan. parce que yaakaar naa ne ñaan moo koy sottal. mooy sottal waaw donc ñu ngi sant ñëpp. mbokk yi gis ngeen ko jërë ngeen def mu ngi noonu yéen a mel ngumba la mouvement ànd nawle yépp la àndal nag gaa yépp ngi fii taxaw mais tey moom la ñuy interroger mu wax système bi ñoom la ñu koy defee non comment jërë ngeen.